Thank you. daa leen ko wax di naa leen ko am taw tawfeex rek lañ ko may xaas la ñu am ñoom ñu ngi nekk ci xas yi xaas la ñu am xaas la am bu wér wér wér wér yoo xam ne tawee ba ñëpp war nañ ñee te ngeen dund ci tàggooyaay nag dañ ko bale xaas xaas ngeen am waaw incha allahu kon bala ngeen di teewlu rek.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 صلى وسلم عليه صمد وجه لي سنته أهيد وعن رداء الله لا أهيد sëriñ bi neen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xadaa teg na alwaraam bi dee fi axsanu kulli naasi yonent bi nga xam ne mooy ki gën a rafet ci mboolem nit ñi teg na leen xayra siraatin ngën ci yoon woo xam ne siina ares na ko moom yoon woowee xan àddinaa si walis tërtër yi muy tilim tilim yuy am ci yeneen xeetu yoon yi. nee na bi nga xam ne nit ñëpp moo ci gën a rafet ci melokaanu biir ak biti ñëpp yonent moo leen gën a taaru. nee na fi ci boppam fexe na ba di leen orienté di leen teg ci ngën ci yoon man jëmewul leen ci boppam wala beneen diina waaye diina ji ko yàlla jox rek la leen di gindi te mooy ihdina siraatal mustaqim siraatal lazina anhamta alayhim mu yoon bu nga xam ne yàlla dañul mukk di ci jaarale yonent yi ñi di ci jaar ba ci yonent bi sallallahu alayhi moom mi nga xam ne moo mujj ci yonent yi mooy ki tëj mboolem anbiya u yëpp keneen dootul ñëw ci gannaawam nee na yonent boobu nag waxtu wu ne la mission am ca Makka ak Madina yëpp mooy fexe ba teg nit ñi ci ngën ci yoon te mooy anna haza sirati mustaqiman fattabi'uhu moo tax sunu borom ne ba ma ko yónnee jox ko njub bi itam ku ko topp itam da jub ndax ku jub la wa in tuti'uhu tahtadu ndax yoonu lislaam bu ngeen xool yoon wu ne am na tër-tër ay tilim-tilim foo mën a jaar fu dul yoonu lislaam rek tilim nga nukk boo jaar ci yoonu lislaam nag te sellal mooy seet nga wicc kon yoon la wu set mënoo jaar weneen yoon yàlla nangu ko lu dul yoonu lislaam wa man yabtaghi ghayra lislaami diinan falan yuqbala minhu wa fil aaxirati minal kon yonent bi nga xam ne mooy ki gën a rafet ci mboolem nit ñi fexe na ba nit ñi mu di leen jaarale ci ngën ci yoonu siraatal mustaqim yoon wi nga xam ne suñu borom musal na ko ci lépp lu ñuy wax tër-tër wurut yoonu lislaam rek am nga tër-tër ahmadu yonent yàlla muhammad yaquudu dana orienté orienté mooy dana womat ku lii sama lépp lil jinaan yi ba kerek aljana salaa yàlla julli wasallama te salmala alayhi ci moom yonente boobu assamadu yàlla muy kilifa gu ñëpp jëmale aju te jublu ajjëm ci kenn ñu ne yonente salaay lépp lu bokk ci man sëñ Tuubaa yonente moo koy xëcc di ko di ko womat ba kerek may tàbbi aljana loolu daal firi mooy yonent bi moo garanti lépp lu bokk nga xam ne sëriñ bi ni yonent bi garanté ne moom aljuna la jëm noonu la ko garantawaale ay taalibeem itam loolu moo taxoon mu sañ wax ne adaqaltu nafsi wa jamii ali fi jay bi abdul warasil fadli loolu lu ko yonent bi garanta la na koy képp ko aju ci yow xam ne bu ma duggee aljana yéen lay def ci sama jiba nga xam ne yéen ñëpp mën ak yéenay duggee ndoor ta te kenn du leen hisab kon nee na yonent yàlla ahmad dégg nga te mooy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam ba keroog may dugal jina sama lépp lu bokk ci man rek moo koy womat ba keroog may dugal jina maanaam daal lépp lu bokk ci man rek yonent bi la ñuy àndal dugal jina yonent boobu nag maa ngi dagaan ci suñu borom mi nga xam ne mooy kilifa gu ñëpp jëmale aji te jublu aji jëm ci kenn mu sax dàkk du julli ci moom tey sëlmal ci moom yonent boobu wajjaxa féetale na lii ci man sunnatoo yoonam wa ahidu ka nga xamee ne aji jéng la walis bépp diine juru diine lislaam wala ahidu te deen may jéng mukk xan rida ilahi walis ngërëmal sama borom nee ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yoon wi ñuy tuddee sunna daf ma caa jaarale kooku mooy wajjaali sunnatu ahidu ahidu dafa bokk turu yonent bi mooy la suñu saar wi daan wax rek lu dul lislaam rek aw ma ca defar aw ma caa yàq wax na dëgg lépp lu wuteeg lislaam suñu saar wi nee ne bu defaroo bu ñuy laaj ku ko defar bu ñëw ci man bu ñuy laaj lu ko yàq ak ku ko yàq bu ñëw ci man dégg nga kon lépp lu dul lislaam rek aw ma ci defar ak yàq kooku dafa bokk turu yonent bi mooy koo xam ne ba tey moom noon rek lu bokk rek lislaam yonent bi amul ci defar amul ci ak yàq moom lislaam rek moo doon yitteem fexe ba mission bi ko yàlla yónni mu di ko doxal moo tax sëriñ bi ne yonent bi fam jaaroon foofu la ma jaaral te mooy sunnaam te man it du ma wàcc mukk ngërëmal yàlla lu yàlla bëgg rek xam nga nit dana wax ne sunna sun sunna sunna sunna te fekk doo nekk ci lu yàlla gërëm te yaa ngi woy sa bopp ne yow sunna yoon yi ci nga bokk yi dégg nga te yow wax dëgg yàlla yaa ngi boole sa bopp ci ahlul jamaa wal sunna maanaam ñi nga xam mbooloo mi nga xam ne dañoo takk ko ànd jaar ci alquran ak sunna te fekk sax yow li ngay def yàlla da koo mere te yow yaa ngi jàppee sa bopp di tagg sa bopp ba noppi yaa ngi jaar ci alquran ak sunna suñu borom ne ne falaa tusqoo anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa yàlla ne attention ki gën a set ci yéen ki gën a ragal yàlla ci yéen kenn xam ko bu leen tagg seen bopp fu ne yàlla da koo tere de tagg sa bopp yàlla tere na ko nit ki na dana wax lu ko yàlla defal ngir sant ci borom waaye maa la gën a ragal yàlla kooku moom kenn du ko def nee na wajjaxa jëmale na lii ci man sunnatoo yoonam wa ahiidu yonent ba nga xam ne aji jéngale walis bépp diine judu diine lislaam wala ahiidu tëddeen may jéng mu ko man sëñ Tuubaa an ridaa ilaahi walis ngërëmal yàlla foo ma fekk daal ni ma nekkee ci sunnatu yonent bi jaarale ma ci ma donn ko ci foo ma fekk itam noonu laa saxee ci li yàlla gërëm te bëgg ko mu ne mallakani xayrul baraaya aqisu bil hujasaati sikra inni aqisu أحمدنا آقس خير الصدقات ملكني خير هلال النفقات وإلى المنتقى خير البرايا الآخر درجة لا تسبه المفاخر تكبير كبيرة من ملكني مملون ما خير البرايا نغنتي من ديف الآقس كده أجي جل بالهجسات أي كيراي كده أجي جابو أي كيراي مملون ما السكرتير بيدي القرآن إني من آقس أجي جل لاكو ni la yonent bi sallallahu alayhi mi nga bokk na ci turam al aqsu bil hujisaati boo demee ci xasida gu mel ni muqaddamatul xidma sëñ Tuubaa dana ko ci tuddee ndax hujisaat moom ku ne xam na ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam da ko amoon ci diggam ak ñu bon ñëpp muy ak kiiraay waaye noonu la ko woon ba tey diggante ay soxnaam ak saxaabatul kiram yu baax yi sax nga xam ne ay jug li ko waroon ayatul hijab mu wàcc te mu wàcc suratul ansab li ko warloon yëpp sabab su mi ngi juddoon rek ci li nga xamee ne mooy Seydina Omar ibn al-Khattab moo tax ba mu wàcc dégg nga xam ne léegi soxna yonent bi dootuñ jàkkaarloog saxaaba yi di waxanteeg ñoom wala ñuy bokk ñoom benn garam place toog déedéet waaye saxaaba yi même buñ soxla sax ci waa kër yonent bi ay soxnaam dafa mel ni dafa am sàkkeru dox seen diggante nga xam ne seen kàddu yi rek ay diggante waaye du gisante seen jëmm yi bu ñu abee barab bu ñu euh, barada bu ñu ataaya wala yu mel noonu xeeti aada yooyu buñ koy def nga xam ne soxna yonent bi ñoo ko am duñ dem ba ci ñoom déedéet yàlla dafa doxali seen diggante ci raay wa isa saaltumuhuna mataahan kooku fasaluuna min min wara hijab xaajis boo ko dégg dox sa digganteeg mbir bi la yonent bi yàlla na ko ci diggante ay noonam muy defal leen ciraa xam nga yonent bi ko weddi ñëpp yàlla ciraa la jël doxale ko seen diggante ak yonent bi moo tax mënuñu xam yonent bi bi de waaye gisuñu yonent bi salaay sam abi ko gëm abi lahab monsieur le mutukasam ñoom ñëpp gisuñu woon yonent bi waaye abubakar la moo tax mu gis yonent ci hijab boobu dafa dindeeku digg ma yonent bi moo tax mu Omar gis nga hijab boobu bi mu nekkee ci moom gëmutoon yonent bi jamono caddu ko ci jamono jaahili yi waaye ba ci raay gi dindee ko la doog gis yonent bi sallallahu kon yonent képp ku jàkkaarloog moom mënoo koo gëm sëñ Tuubaa nee na dañoo jël ci raay ko sa diggante ak moom moo tax mënoo koo gëm mënoo ko xam moo tax fu ne lu la nit mën waar waar waar waar dafa mel ni da lay yokk coow rek problème rek la lay yokk waaw waaye nag su fekkee ci raay doxal sa diggante ak yonent bi même bala nit da la wan preuve ci bi sax nga mën koo gëm sallallahu alayhi wasallam kon moo taxoon mu wàcc suratul hujuraat suratul hujuraat mu ngi noonu. kon yonent bi di ngeen ci mbindeef moom mi nga xamee ne yàlla da koo defaloon ci raay mooy ñi ko gëmutoon ñëpp mënuñ koo xam ba di ko gëm. yàlla itam noonu la defaloon ay soxnaam ci raay ba duñu wax saxaabatul kiraam yi di jàkkaarloo ñoom dina yonte kàddu ñoom. yonent bi ni ko yàlla fonkee nee moom la ñu alquran nag ba ma téyel ko sama man sëñ Tuubaa kon man la moom la nu ma xayrul baraayaa ngeen ci mbindeef al ay ci dégg nga dégg nga bil hujju saati ay saal saal mooy kiiraay asikra mu ngi mel ni nii bi nga nekk man ma nekk ci ëtt bi li tax manumaa dugg ci néeg ba di la mooy dangaa nekk ci biir saal bi danga nekk ci biir néeg bi ko mooy hujju saat mënoon na ma nag asikra alquran ini man aqutu aji jël laa ko mooy yonent bi daal moom la dama alquran ba ma jël ko ahmadu naa sunu ahmad mi aqutu aji jàpp la xayri sadaqaan gën ci saraxa malaka nii moom loo na ma xayra gën ci yu dagan yi nafaqaat te doon loo xam ne ak dund la ak loo xam ne ak dund la mu ne yonent bi salaay salaam daan na jël sarax waaye loolu moom siiw na ne yonent bi du daan lekk sarax lam daan lekk mooy hëddiya waaye nag daan na ko jël du tee nag da koy joxewaat wala mu maye ko waaye nag daaw daawut ko daan lekk waaye loo ko saraxaan xam nga yonent bi doo ko jox dara nag ba noppi nag ak ni nit ñi mel ci yonent bi salaay salaam nga di ko jox dara sarax ko ko ba noppi dégg nga mu di la ko delloo kon loolu day mel ne gàccal na la ku mel ne yonent bi waaye daan na ko jël lan la ko doon daan def mooy daka daan jox ñi defe nii ñu néew ñu néew doon lañ dégg nga ndax loolu yëpp lam ci mooy defe na ne moom sarax am na ñu gën a yeyoo sallallahu alayhi wasallam defe na ne sarax moom loo ko mos a jox da koy joxaat kon mu ngi noonu yonent sallallahu alayhi wasallam kon sunu axman mi dégg nga daan na jàpp saraxe mooy lépp lu ko waaye jox mu jëm ci mbay ko ci ak saraxe daan na ko jël nee na yonent bi moom loo na ma ngën ci dagan ak dund lépp lu ñuy dundee la ca gën ak lépp lu dagan la ca gën yonent bi jox na ma ko ahmad naa sunu ahmad mi àqsu aji jàpp la aji jël la xayri sadaqaat ngën ci saraxa ya saraxa yañ daan saraxa te mu doon saraxa yoo xam ne da di wóor lii la ñuy saraxa doo lu bon waaw <laughs> moo tax mu ne xayri sadaqaat xam nga kéem nu yonent bi doo ñëw saraxa loo xam ne solo lu mel ni ni ñuy Sénégal yi di def nga xam ne da ngay da lay ñam yi bëggoo ko xaalis bi bëggoo ko nga doog koo saraxa kooku mënoo ci am payoor ak yàlla lanta naa lu biira taatan bi xoy maa tuy bona dëgg-dëgg ki bëgg lu baax kay te mu war a juddoo ci saraxa da ngay joxe lu baax waaye bëgg saraxa lu bon jot lu baax mam loolu xel sa xalaatul ko boo bëggee lu baax da ngay saraxa lu baax kon mu ngi noonu kon suñu wax man mi daan na jël ngën ci ak saraxa moom la ma ngën ci dagan yi ak yi nga xam ne mooy dund yi maanaam lépp lu ñuy dundee la ca gën yonent bi moom la ma ko moy jox na ma ko lépp lu dagan lu ñuy lekk la ca gën yonent jox na ma ko man la ni moom la ma xayra xalaalin gën ciy dagan nafaqaat ak yi nga xam ne mooy xeeti dund yi lépp lu ñuy dundee rek la ca gën yonent bi jox na ko lépp lu leew te dagan rek te te te tey rek yonent bi moom loo na ma ko lil muntaxa xayril baraayal aqiru darajatun la tusbul mafaqiru lil muntaxa ñeel na ka ñu tànn ka di yonent bi sallallahu alayhi bi aalihi wa sahbi ajmain xayril baraaya kay ngeen ci mi def al aqiru aji mujj ci yonent yi ñeel na ko mooy am na rek darajatun daraja joo xam ne laa tusbihu dégg nga du niru mukk dara ji jooju al mafaqiru way ndamu ña way puukurihu ña way tiituru ña nee na bi nga xam ne mooy ku mujj ci mboolem yonent yi kooku mooy al axiru nee na am na daraja joo xam ne ñooy puukurihu ñëpp daraja yonent bi ñoom ñooy puukurihu seen daraja yi ñuy puukurihu niroo wut bi bu bi kon lool mën nañu bokk ndax koy puukurwante day fekk ki ngay puukurwante ngeen niroole waaw da ñëw yire ma ñëw yire ñu bokk benn modèle bokk ku ñu bokku bokk suñ bokk luñ fay même sax ba ci piis yi ñoo ñoo niroo ñoo bokk fuñ bay ko ñoo bokk ñu ko jaay kon bu tiitaroo bu ma tiitaroo yo man ngaa tiitaroo waaye yonent bi dara ji ko yàlla jox kooku niruwut ca kenn kon am na dara ji dara joo xam laa tus bi du ko niru mukk almafaaxiru way ndamu ja mu ne ahmaduna al muxtaaru axsa lil ila yaxmi janaabi an saqawatin wala ahmad naa sunu ahmad bi ba tey al muxtaar kata kuñ tànn al axsa ilahi mooy ki gën a ragal yàlla muy buuram kooku yax mi dana aar janaa bi sama wàllu an saqaawati walis lépp luy tax lépp luy taxay wala ak caaxaan ne na bi xam mooy muxtaar mooy sunu ahmad mi booy xool daal ki gën a ragal yàlla ci ñëpp nga xam ne jarul laajte kooku moom mooy yonentu salaay salaam ndax mooy exemple ci maanaam ragal yàlla mooy baabu taqwa ni mu doonee baabul noonu la doonee baabu taqwa nga xam ne ñu ragal yàlla ñëpp buntu bi mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon suñu yonent bi di muxtaar ñëpp moo ci féete kaw ci ragal yàlla dégg nga mooy ki nga xamee ne man sëñ Tuubaa yonent yi moo protéger sama wàll ba lu ñëwee tuddee texay di ak caaxaan man jomb naa def jëfi texay di wala caaxaan lu amul tiyaaba sax jomb naa koo def ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo aar sama moo tam ne yax mi dégg nga moo xaar janaa bi sama wàll an saqaawatin walis lépp luy texay di ak caaxaan sabbati nii saxal na ma allahu yàlla dakk bi usni xayri ci darajaay borom nopp ba daan déglu yu képp bu jeexee mu noppi ala saxaadatin ci ak texe tu sa fi goo goo xamee dana sellal may di sama xont samay xéewal nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sun borom subhaanahu wa taala mi ko sàkk tuddee ko usni xayri usni xayri moom yàlla ko ko tuddee ci alquran ci suur tawba ndax naafiq dañoo waxoon ne dañu tuumaal yonent bi sallallahu alayhi wasallam naan moom benn nopp la benn nopp mooy nit koo xamee loo ko wax rek loolu lay jàpp même bu doonee dëgg bu doonu dëgg bari na ci nit ñi am ni ñoo xam ne lu ñu dégg rek fu ni moom fu ni booy xool Sénégal moom romb nañ foofu ndax li ñu ci internet wala ñuy déglu ko ci ay audio xamuñ sax nu mu demee rek ñoom gëm nañ ko waxuma laa nag ki ñëw di leen wax kàddu waaw waaye looleen lu ñu dégg rek gëm nañ ko balañ ci am profil leer sax wala kenn di leen ci wax dara bam leer naññ fekk nañu gëm ko yonent bi melutoon noonu de sallallahu alayhi wasallam kon suñu borom moo ma saxal ci darja yonent bi nga xam ne mooy borom nopp biiw ba maanaam doo ko wax dara rek mu gëm ko keneen ñëw mu gëm ko deret la nga ko wax bu doonee lu baax loolu rek lay déglu jàpp ko waaye du déglu loo xamee ne di jàpp loo xamee ne ci ay noppam ba muy dugg ci xolam mu di ko gëm nga ñëw wax ko rek na ko diwa def nangam wala diwa la wax nangam mu gëm ko chance déedéet da ko wiir fi ba mu leer dégg nga am na ci nit ñi naan loo loo leen wax rek ñi gëm ko te duñ ko wiir fi te rambaajkat nag ñi lay rambaaje mooy ñi la gën a jege man nga ne gis nga fi taalib bu yàq diggante sëriñam ak sëriñub jàmbur taalib yu bëri ñu yàq eh, la woykat boo waxoon rek nee na jamono ji toll nañ foo xamee ne taalib bi mooy dox diggante sëñ bi ak boromam ba noppi naan ko ñaanal ma kooku bu ñaan yàlla dal na ko déedéet parce que taalib bi moo dox si diggante sëriñ bi ak yàlla waaw nga xam ne sëñ bi bu waroon dem ci yàlla tey taalibee dox ci digganteem ak yàlla ba noppi taalib bi di sàkku sëriñ bi na ñaanal ma kooku yàlla ci yàlla musal mu xel la ma sax ci ak texe bépp jëf ji sabab ak texe rek texe goo xam ne waxtu wu ne sama xéewal yi mi ci amee suñu borom da koy sellal ba mu set wicc nee na suñu borom moo ma saxal ci barke bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga xam ne waxtu wu ne ndëggum daal ci yoonu texe rek ci la koy dëgg waaye du ko suub mukk ci yoonu texe di nabiyina arjahi kulli naasi xaqlan xamaani xan asal unaasi nabina sunu yonent bi arjahe arjahi kulli naasi maanaam mooy ki ëpp ci képp ci nit ñi xaqalal xel xamaani xaar na ma xan asal unaasi wëlis lori nit ñi nee na yonente salaay salaam képp ku am xel moo la ëpp xel nit ñëpp moo ci ëpp xel salaay salaam koo koo mën a lim lu mu bari bëri xel am xel xelam mu ñëw moomee sax ci barke bi yonent bi ci la ko def defalee suñ too wax ko kon suñu yonent bi nit ñëpp moo leen ëpp xel dégg nga gën leen di yeewu gën leen di ñaw sëñ Tuubaa nag nee na yonent boobu xam ne moo ëpp nit ñëpp xel moo ma aar ba gépp lor gi bay ko ci nit ñi sun borom musal na ci man kenn mantul ma lor yaquudu arhamul unaasi bil ibad lii mastakanna wal xafiya liya baat yaquudu dana womatal lii jëmee ci man arhamul unaasi ki ëpp yërmande ci nit ñi bil hebat ànd ko jàmm ñi mastakana la nëbbu waaye wa baat aji feeñalal la lii ñan ma dégg nga dégg nga aji leerlal ma lii ñal ma alxafiya yi nga xam ne mooy yu nëbbu ne na yonent bi nga xamee ne jaam ñëpp nit ñëpp moo ci ëpp yërmande nee na lépp lu nëbbu yonent bi moo ma koy feeñalal lum nëbbu nëbbu nëbbu nëbbu yonent bi moo ma koy woomatal xamal ma ko feeñalal ma ko waaye lépp lu nëbbu ba kenn mënul koo xam yonent bi moo ma koy leerlal na ma nii la demee sallallahu alayhi wasallam kon moom digg ma yonent bi kenn doxut ci ni nga xamee ne yonent bi digganteem ak borom kenn doxut ci diggante sëriñ bi ak yonent bi kenn doxut ci moo tax mu ne lii mastakana wal xafiya liye baat kon yaquudu dana womat liy jëmee ci man arhamul unaasi ki ëpp yërmande ci nit ñi bil xebaat ànd koog jaam ñi yonent bi jaam ñëpp yàlla nangu seen jaam kooku mooy al unaas déedéet kooku mooy al xebaat waaye al unaas nag mën naa doon nit nit kese rek dégg nga mën naa doon nit ku baax léeg-léeg wala nit ku bon waaye xebaat moom bu ñu ko waxee nit ñu baax ñi kon dafa bëgg wax ne rek ki ëpp yërmande ci jaam ñu yàlla nangu seen jaam ak niti yi nit kese yi nit lu mbër bëri yërmande yonent bi moo la ëpp yërmande yonent boobu nag yaquuru dana womat arhamul unaasi ki ëpp yërmande ci nit ki bil xibaar ànd koog jaam ñi dana womatal lii jëmee ci man mastakana la nëbbutu dégg nga wa baat aji leeralal ma ba mu leer naññ lii ñen ma alxafi yu nëbbu mooy yi nga xam ne dafa xóot kenn mën koo xam moo ma koy leeralal ba mën koo xam ba tey gis nga tagg yi mu ne nabiyina xayril baraya al asharu taqdimuhu min xayri nukurin yasaru mu ne nabi naa ba tey sunu yonent bi xayril baraya kay ngeen ci mindeef asxaru aji fiiñ la aji leer la nañ taqdimu ak jiital gi ko yàlla jiital min xayri nukurin ci lurut ak weddi yasaru goo xam ne dana fiiñ mu ne sunu yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom mii ki ngeen ci mindeef jiital gi ko yàlla jiital kooku dana fàng ñëpp ko xam ñëpp ko gis dégg nga loolu nee na kenn du ko weddi weddi boo xamee ne da nga ciy dut baaraam ne lii nu muy mën a nekkee kon mu ngi noonu kon yonent bi yàlla ko jiital ci lu benn nukkuru goo xam ne dana doon lu ñuy tuddee yasaru dafa dafa am nukkuru gu ñuy wax yasaru maanaam nit ku weddi dara ba lang waaw waaye yonent yi moom même boo ko weddilee sax yàlla namut rek nga mën koo gëm waaye xam ngeen ne moo gën ci mbindeef yi waaw mu ngi noonu moo gën ci mbindeef loolu moom ku ne xam na ko même boo ci tegee sa baaraam sax ciiraay bi ma la waxoon léegi rek mooy dañoo jël sa ci ciiraay doxal ko sa diggante ak yonent bi ba mënoo xam loolu. waaye ala kulli léeg sax nga nangu ko soxol xol sallallahu alayhi wasallam kon min xayru nukkurin ci lu benn wedd goo xam ne yasaaru dana feeñ faaqa kawe na alwara yaam bindee fi faaqa sut na faaqa kawe na alwara bindee fi as joxoon kulli ki gën a jàmbaar ci bépp nit as doxuhum moo leen gën a dëggu fii laay ci yàlla rabbi naasi muy borom nit ñi nga tagg yu nit koo mën a gis ki ko gën a jàmbaar jarul laajte mooy yonentu sallallahu alayhi wasallam nit koo mën a gis lum dëggu dëggu dëggu dëggu yonent bi gën a dëggu lum jàmbaar jàmbaar yonent bee gën a jàmbaar lum dëggu dëggu yonent baa ko gën a dëggu ci yàlla muy borom nit ñi kon yoonu yàlla képp ku fi jàmbaar wala nga dëggu fi yonent bi ngay jàppale sallallahu alayhi wa sallam na basiri lajina amanu anna lum qaddama sidiqan inda rabbihim bokk na ci ay turam sëñ Tuubaa indi ko ca jaalibatu maraqib mooy qaddama sidiqan mooy suñu borom da ko wax ci suuratu Yunus na ko bégalal jullit ñi ñiy def lu baax di ko jiital ci àddina nee na payoor ga ma ngi leen di xaar fa seen borom mu ne yaquudu dana womatal at yebul unaasi gis nga ki gën a teey ci nit ñi riixa xat dana womatal li jëme ci man maa yi si loolu dana dolli albisra mbég ma mustariha mbir ma ma doon ku ñu noppal ma doon ku ñu féexal ma doon ku ñu naflaayal nee na yonent bi nga xam ne nit ñëpp moo ci gën a tey xet yonent bi boo boo boo ko sëriwaan sax fu mu mos a toog rek boo ñëwee toog fi da ngay xam ne fii am na ko fi toog wala da ngay defee ne fii dafa am parfum bu ñu fi xapp fekk yonent baa fi tegoon rek bàyyi ko fa. nga sax bi mu doonee gune sax Saadiya mi ko doon nampal ba dégg nga daan na fomp ñaq yi ba noppi di ko jaayaat ngir xet gi ci nekk. nga xam ne dañ daan dañ daan defee ne maanaam da koy parfum fekk ñaq yi la rek yonent bi mel noonu sallallahu alayhi wasallam yonent bi kon ba tey Sëriñ Tuubaa ne mooy ki gën a téye ci nit ñi xet waaw yonent bi boo ko jegee rek xet gi ci boppam mi ngi lay xeñ fi mu toog ba gisu toog fa sax boo fa demee toogaat fa da ngay xet gi di la xeñ sallallahu alayhi wasallam mu ngi noonu. nee nag dan ma womatal loo xamee ne waxtu wu ne sama mbégte ci yonent bi ak yàlla day dooleeku waaye damay damay def li ñuy wax al istira al istira mooy ku noppalu ku ku am naflaay nga xam ne doo dara xet gu naqari dootu la xet lu naqari itam doo ko gis du la jublu nga xam ne kon yow fu ne yaa ngi ci fiixte waaye fiixte ak borom bi subhaanahu wa taala yàlla moo la fiixal yonent bi moo la fiixal am na ci jaam ñu dem ba tool ba nga xam ne mbégte rek ci la ñuy dëkk moo tax ma ne yaquudu dana womatal li jëmee ci man aryabul unaasi ci nit ñi boo xamee ne maa yesiiru dana dolli dégg nga albisra mbég mi mustariha ma doon ku ñu noppal ku ñu naflaayal rabixtu fil xidmati lil ahasi ahmadina al ahlala dal maasi rabixtu tonuhu naa fil xidmati ci liggéeyal lil ahasi ñeel ka gën a tedd ahmadina kay sunu ahmad mi al ahla ka gën a kawe la dal maasi fa yàlla muy aji teddal ko ko neex nee ne liggéey bi may liggéeyal yonente bi nga xamee ne mooy al ahasi nit ñëpp ni mu ci gën a tëddee la ci la la ci féetee kaw tedd nga moom wali la lansatu la yàlla wax wali rasul yi walil muminina kon da nga ciy déggee ne bu dee tedd nga ak yàlla moom bokkut ak tedd nga ak yonentu tedd nga ak yonentu bokkut ak tedd nga ak jullit kon moom tedd nga ak yàlla bu ñu ko jëlee def ko à part nga xam ne yàlla moom teddantuut ak kenn yonentu bi tam noonu la mel waaye gis nga yàlla bi ñuy wax daane walil muminina lu na tedd nga ak jullit ñi dañuy rawante waaw dañuy rawante waaw maanaam ñëpp duñ bokk ak tedd nga ni nga xamee ne tedd nga ak yàlla ak tedd nga yonentu bi nañu noonu la tedd nga jullit ñi wuutee dégg nga dégg nga kon mu ngi noonu moo tax mu ne liggéey bi ma ko liggéeyam yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom mi nga xam ne mooy ki gën a tedd ci ñëpp mooy sunu ahmad mi mooy ki gën a kawe ci mbindeef yëpp nee na toroxu naa ci fa yàlla muy aji teddal ku ko neex dégg nga nga xam ne kon boo demee fa yàlla mi tudd mu ansi moo fa def yonent bi muy al ahla ki gën a kawe moo fa def yonent bi muy al ansi ki gën a tedd kon toroxu naa ci liggéey bi may liggéeyal ki gën a tedd ki nga mooy sunu gën a fa yàlla muy aji teelal ko ko neex dégg nga basarani ahlamu billahi al asim la budda li min xayri sukrin bi nasim basarani bégloo na ma al ahlama ki gën a xam ki ëpp ñëpp xam-xam mooy yonent bi billahi ci kàttanu borom al asim bay aji màgg laa budda kon nag mantu ñàkk man suñ tubaa lii di ma ñeel min xayri sukrin ma def ngën ci cant yoo xam ne bi nasim dañ koo nosee waaw mu ne yonent bi xam mooy al ahlama bokk na turam mooy ki ëpp ñëpp xam-xam nee na bégal na ma ci boro boromam bu màgg bi la may bégalee moo tax nag bégal googu may bégalee wax waxtu wu ne man Sëñ Tuubaa mantu ñàkk may def ngeen ci ak cant yoo xam ne dam koy wëy muy xasida yi rek nga xam ne lépp gannaaw ba ko defee cant da ko def ci wëy ngeen nit ñi di ko jàng di ko mokkal te di ko xam kon laa buddali min xayri sukrin bi nasib yaquudu dana womat aksaru naasi ki ëpp ki gën a bëri ci nit ñi tabaxa ay surga ay xuddaam tabaxa mooy ay xuddaam rek dana womatal lii jëme ci man tabaxan ay xuddaam yoo xamee ne bihim ñoom xuddaam yooyee ura ci la ci la deefu ma gisee man suñ tubaa mu tabaxan mbir moom moo doon ko ñu topp xam nga yonent bi képp ku am ay surga yonent baa léppoon surga dafa amoon ñu ñuy tuddee ay xuddaam ñu koy liggéeyal waxuma sax ñim jamono wante waaye xool tey ñi ñëw ci garaaw yonent bi rek di liggéeyal yonent bi sallallahu sam wasallam waaye ñëpp nag yàlla yëkkati sëñ tubaa mun ko ali baqal qadim jaalani asna qadim nee nag yonent bi ëpp ci nit ñëpp ay surga mu may womatal ma ay surga yoo xamee ne surga yooyu yonent bi womatal ma lañ may gis ma doon ku ñu topp. xam nga booy jàng xasida gu mel ni midaad yi Sëñ Tuubaa da ne dan euh, maanaam ku texe laa ana fi yoo xam ne mutihan mutaan fa isan bi wisaalihi ana foofu da ne ku texe laa kuy topp yàlla waaye ku ñuy topp la nga xam ne kon ni muy toppee yàlla noonu la ko yàlla may ñu di ko topp moom Sëñ Tuubaa te xasida googu muñ ko tënkee midaad yi man yu teen rosal faxa daataan laa te loolu rek na ko ku topp yonent bi kay topp na yàlla waaye ku topp sëñ Tuubaa itam topp nga yonent bi topp nga yàlla moo tax sëñ Tuubaa wax ci biir xasida ne mu taaxan man ku ñuy topp la faa isan bi yu saali ndax damaa tuuf ci jokk gi ma jokk ci yonent bi kenn doxul suñu diggante kon ku jokk sama gannaaw rek dégg nga ba tey noonu rek la mel dafa mel ni yàlla nga topp kon ku topp sëriñ bi yàlla nga topp ndax sëriñ bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam la topp moo tax mu ne nag yonent bi dana moo matal ay surga kon koo gis ma liggéeyal sëñ Tuubaa rek yonent bi ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko yebal ci sëñ Tuubaa dégg nga ñi ngi gis ñi liggéeyal sëñ Tuubaa yëpp yonent baa leen fi indi kon yëquudu yoon wi du kum neex kii de déedéet ay tànn la fépp fu waay nekk rek dañ laa tànn bu fekkee tànn gi nag du dëgg ci lu mu yàgg-yàgg dama ko beekoon wallaay lancim tànn gi bu nekku dëgg rek lu mu yàgg-yàgg boo doon tappaleeg yëpp ci am da nga fi beekoo bis bu sëñ bi yëlboo rek nga daal di génn kon yëqut danoo mat ak saru ki ë ah, gën a bëri ci nit ñi tabax ay surga surga mooy ay toppekat danoo mata li jëm ci man tabaxan maanaam ay surga yoo xam ne bii ñoom surga yooye wara ci li ci la di fu ma gisee man suñ tubaab mu ma doon ku ñu topp mooy la ma waxoon ba tey ci muqaddamaat ba rek wali qaad ahbaban bi usulu nuska mu ne ala nabi sil masayal akrami aska salaamay sil kitaabil akrami akrama kulli naasi doona miriya nabiyuna ahmadu mahil firiya mu ne aska salaamay gën kaa sall julli ak salmal sil kitaabi yàlla mu tukkee ci yàlla muy borom téere bi al akrami doon ki gën a tedd ala nabi ko julli ci kaw kañu solo ko sil masaya kay borom maya doon ki gën a tedd nee ne salaatu salaam gi gën a sell gu tukkee ci yàlla moom muy borom alquran doon ki gën a tedd moom yàlla yàlla na ko julli ci yonent bi nga xam ne mooy borom ngëneeli mooy borom may waaye mooy ki gën a tedd ci mboolem nit ñi dégg nga akramu ki gën a tedd kulli naasi ci képp ci nit ñi gis nga xasidi gi lépp maanaam buy tagg yonent bi danaan kulli naasi boo seetloo kulli naasi yi nu ngi koy nu ngi koy tegalante at yebu naasi at jaxon kullu naasi noonu la ko toppee di tagg yonent bi ak sarul unaasi tur yoo xam ne kéemaan la akram mooy ki gën a tedd ku li naas ci bépp nit doo na miree ci lu dul benn werante kooku nabi naa mooy sunu yonent bi ahmadu mooy ahmad maahi mooy aji far alfiriya ak dóor ne ne boroon xool daal nga xam ne lii daal kenn du ko gam-gamle ki gën a tedd ci nit ñi buñ la ko laajoon ne mooy yonent bi moom mi fi jëlee kàcc ki fen ak sos ak moom mi ko jëlee ba daane ko taxul dëgg nee nag yonent ba képp ku gën a tedd ci nit rek moo la gën a tedd nee na loolu nag doonu miriya werante amut ci lil muntaxa ñeel na ko ñu tànn ka akrami nasli aadami mooy ki gën a tedd ci doomu aadama yi min ya bàyyi na ci man maa liggéey boo xamee ne ox jesa lottuloo na tëliloo na ku la xaadimi bépp surga nee na jox naa yonente sallallahu liggéey boo xamee ne ñëpp dañ koo tëlee maanaam liggéey bu nu mel daal dootul bay ci kenn jëm ci yonente bi comme ni ma ko defee waaw man sanna annahu yakuna abra yurdi bi la ci xidmati bada kooku fuqruhu dalal wala idlal fe mu ne nafayta sannahu bi anniyal xadim bi ma wana an misli kullu xadim nga xam ne kon moom ci boppam rek moom may wax ne moom awun morom moom ci gaa yi te nuuru daareen dégg nga ko mu ne ana la ci seerte ni xadima wa xutale bay naa war a tax xadima nga xam ne kon jiital googu yàlla jiital ko ci kaw xuddaan ñëpp gannaaw ba mu bokkee seen biir di liggéeyal yonent bi yàlla da teg ci kaw ñëpp ñëpp nangu ko dégg nga kon mu ngi noonu moo tax ma ne liggéey bi ma jox yonent bi képp ku def ne lu nu mel da nga ko jox yonent bi daj naa so fe mu ne nafayta sanho bi anniyal xadim bima wana an misli kullu xadim nga xam ne kon moom ci boppam rek moom mooy wax ne moom awun morom moom ci gaa yi te nuuru daareen dégg nga ko mu ne ana la ci seerte ni xadima wa xutale bay na war a tax xadima nga xam ne kon jiital googu yàlla jiital ko ci kaw xuddaam ñëpp gannaaw ba mu bokkee seen biir di liggéeyal yonent bi yàlla da teg ci kaw ñëpp ñëpp nangu ko dégg nga kon mu ngi noonu moo tax ma ne liggéey bi ma jox yonent bi képp ku def ne lu nu mel da ko jox yonent bi daj naa su le sànni wallaahi laasim lottu na di liggéeyal loolu liggéey bu mel liggéey bu mel noonu képp kuy xaadim xam nga sëñ bi xadim la gaa yi xaadim lañ waaye xam na ne jiitu na leen moo tax mu tudd xadim waaye sëñ bi nag ci njëlbeenam xaadim la tuddoon ci njëlbeenam xaadim la tuddoon bi mu demagul ci géej gi xadim yàlla mi ngi ko ko takkaleen ndombal tànk bi mu dem ci géej gi dégg nga allamani rahmaanu fi safina bi anani alqadim sil madina kon loolu ci géej gi la ko yàlla takkalee kon xaadim mooy koo xamee ne day xëy di wàcc nga xam ne boo ne ko xëyal mu xëy boo ko waxul man naa bañ a xëy xadim na mooy koo xamee ne bala ngaa wax xëyil sax moom xëy na kooku moom nee na ba keroog may dugal jënd dama koy doon bu dee xaadim nag moom boo faatoo jeex na même boo nekkee ci àdduna sax buñ la santee na la xëyal nga xëy buñ la la gontal nga gont buñ la wàccal nga wàcc waaye xadim nag nee na ba kere may dugal aljana sax damay liggéeyal di liggéeyal yonent bi na ci man nga euh, jëm ci yonent bi maa liggéey boo xam ne un ji sa na ku la xaadim bépp surga képp ku ñuy wax ne surga la rek te doon xaadim di liggéeyal yonent bi am na ci liggéey bu bàyyikoo ci man jëm ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom mooy ki gën a tedd ci doomu aadama yépp liggéey boo xam ne yow lottuloo na mooy mënoo ko rek tëli nga ko xam nga nit ki lu manut moom kooku jarut jéem ndax doo ko mos a kon sëñ foofu la rawee gaay yi moom li mu jox yonent bi ñëpp dañ ciy tëli tuba Tuubaa kooku mooy ixjaas mooy ku ñëpp xamut ku ñëpp lot ci wax ay ngëneelam ak i lim def itam kenn manu ko ahmaduna almaahi imaamil xayri xallada xayri maahiyan li dayri nee na ahmaduna sunu ahmad mi almaahi ka aji far bàkkaar imaamil xayri kay njiital mboolem yiw yi mboolem ñu baax ñi rek mooy seen njiit xallada saxal na xayri sama yiw maax yan mbir mu muy aji far li day di ñeel sama lor nee na sunu ahmad bi di yónent bi salaay salaam moom mi nga ne mooy ki fi dindee lu ñuy tuddee maanaam xeeti réer yëpp ak kàcc fen yëpp mooy aji far bàkkaar ji nee na mboolem lu baax buñ ko nattee lu baax loolu yónent bi mooy njiitam moo nekk ci kanam nee na yónent boobu nag lépp luy yiw moo ko saxal ci man moo ma ko jox lépp luy lor te nekkoon ci man moo ko dindi ci man kon ahmaduna sunu ahmad mi almaax yi kadaa ji far bàkkaar imaamil xayri kay njiitul yiw yi xalada saxal na xayri sama yiw maax yan mbir mu muy aji far li dayri ñeel sama lot waa jaani jublu na ma bisru imaamil muttaqin mbégteem njiital way ragal yàlla ñi ali yàlla du nekk ci yonent bi taslima mu ali julli ak sëlmal yàlla muy aji yëkkati al murtaqin way yéeg ña jëm ci moom nee na mbégum ki nga xam ne ñi ragal yàlla ñëpp mooy seen jiit boo doon natt ñi ragal yàlla ñi gën ragal yàlla kay seen boo leen dajalee bañ nekk aw say seen njiit nga xam ne mënuñ koo romb mukk moo leen te kaw ci ragal yàlla mooy yonentu salaasam nee na ko kono mbégam ci heure bu ne mbégam daf may jublu kon gis nga yonent bi ni ragal yàlla waaye waxtu wu ne bu demee ba di bigal sëñ Tuubaa dëgg dëgg xam nga ne sëñ Tuubaa ko ragal na yàlla mu ne salaatu salaam ak yàlla mi nga xam ne ñi yëg jëm ci moom am yitte ñëpp jëm ci moom moo leen di yëkkatil boppam ndax yàlla nee na booy raam ma dox ji la kattan si booy dox nag ma daw dajeeg yow yàlla noonu la mel yàlla booy booy booy dox jëm ci moom du de day daw dajeeg yow dégg nga moo tax ñuy wax na yoonu yàlla sëriwut dégg nga kanaa ka fa jëm rek moo moo moo ña bu xamee yoon wa yoonu yàlla sëriwut waa jaxani ajru imaami rusuli alayhi xayru salawaatil mursali waa jaxani jublu noo ba tey ajru imaami rusuli payoorum njiitul yonent yi xale yàlla du nekk ci moom yonent boobu xayru salawaatil mursali ngan ci jullig yàlla muy aji yónneem ji ba tey nee yonent bi sallallahu alayhi nga xam ne payoor yi payoor yi nga xam ne day béy ko ci yonent bi maanaam mu dox diggam ak Serigne Touba nee na payoor yi ci boppam léegi nag ñoo may jublu maanaam daal mel ni ko daan yonent bi léegi bu doon ci sunu waxin ñun mooy koo xam ne dafa ñëw di la baadare moo toll wax ji nga xam ne léegi yonent bi ñëw ci boppam di fay sëriñ bi Serigne bi liggéeyal na yonent bi ba wàcc yonent bi ñëw na di ko fay di ko baadare waaw loolu mooy payoorug njiitul yonent yi mooy jublu na ma yonent bi moom maa ngi koy ñaanal yàlla mi ko yónni julleem yi ci gën maa ngi koy ñaan yàlla julli ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ajru imaami rusuli alayhi xayru salawaatil mursili liya imaamul anbiyaai qad naha wali bilantihan yusafil minaha qad naha na liya ci imaamul anbiyaa i njiitul anbiyaa yi wa yusafi te dana sellalal lii ñeel ma al minaha mayya bilantiha in ci muy am yemukaay nee na ba tey imaamul anbiya yi fee dane woon imaamil xayri fii mu ne imaamil muttaqin fii mu ne imaami rusli fii mu ne imaamul anbiya yi na ki nga xam ne ñi yàlla solo jox leen xam-xamu nu boot te yónniwut leen mooy seen jiit boo dajaloon ñi yàlla solo ñëpp te yónniwut leen waaye xam nañ waaye duñ jottali nee na yonent boobu nga xam ne mooy imaamul anbiya mooy njiital anbiya yëpp nee na jublu na ma jublu na ma di ma teral ci waxtu wu ne di ma dotti ay mayam yoo xam ne du am fu ñu yem mukk waaye mboolem may ma jox rek dafa maa garantal na ma yàlla sellal na ko dara du ko yàq te nay may duñ mos a jeex moo tax mu ne xad naxa jublu ci man imaamul anbiya yi njiitul anbiya yi dégg nga dégg nga wa yusuf yi te dana sellal lii ñeel ma bilantihaan bilantihaan ci lur mi am yu ma koy alminaha maya mooy may ya may jox daal waxtu ne dafa ma caa tegal garantal ma ne may yi waxtu ne day yokk di gën di waaye dara du ko mën a yàq kon xasida goog mooy bayit bi mujj ci xasida gi nga xam ne moom lañ doon firi te mu tudd yawma mawlidihi yawmal isnayni fii rabial awal ca tarjumaan ji nag da ngaa mu ne allahumma bi aqwa ci lay ta'ala karim salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa mawlana wasilatana ilayka yaa man ja'ala kooku nag moom lay mottali ci tarjumaan ji nii kooku lay wax nag sayyidina mooy sunu sang bi muhammadin turam mooy muhammad wa ala alihi julli wàllal ci waa kër wa sahbi ak sahabaam a comme dafa ñaan ci tarjumaan ji njëkk yi yow sunu borom julli te sëlmal te doolik barke ci yonent bi nga xam mooy sunu sang doon sunu wasila jëm ci yow yow mi nga xam ne yaa def gane gi mu gane jamono ci bisub ëltina ci biit weeru gàmmu ci fukki fan ak ñaar kooku nag mooy sunu sang bi moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam pro mooy Muhammad yàlla na nga julli ci waa këram ak saabaam yëpp. wa basiru te yàlla na ko bégloo bi haasil abyaat ci ma def ca moom wàccal ha na ko def moom abyaat yi min albaqiyaati saalihaat mu bokk yi nga xam ne albaqiyaatu saalihaat lañ leen di tuddee mooy yoo xam jeex mukk te ku ko jàng wala nga wax ko wala nga xool ko ay yiwam bu yowmal xiyaame benn malaaka du ko mën a peese muy xasida gi wa taqabal xaata yàlla nga nangu min xaa ilaa jëlee ci man ñi ko wax xa boo nangu goo xam ne yetta ajibu dana yéem min hu nangu googu nga nangu ko al awaloona ñi ma fi njëkkoon ñëpp wala aqroona at ñi sama gannaaw te mujj fi amin yàlla nga na ko ñaan yaa rabbal alamin mi borom ñi di fi mu ne abyaat def ci yonent bi sallallahu gis nga tagg wi kenn mostu gis tagg wu neex la te gis nga ni may tagg yonent bi yëpp nga xam ne sifa wu day xool wa ca féetee kaw mu tagge ko yonent bi imaamil muttaqin imaamu rusli imaamul anbiyaa'u loolu yëpp tudd na ko yonent bi waaye aksaru naasi adyabu naasi al ahasi al ahla al axsal ila yooyu yëpp nga xam ne tagg yan wu ci nekk boo ko toppoon keemaan la as joxon kulu naasi as daquum fii laahi yooyu yëpp ay tur yu ko la moo tax na mu ne nag damaa bëgg bayit yii na nga ci bégal yonent bi waaye bay di ci boppam na nga ko def mi bàqaati saaliyaat waaye na ko nangu man mi ko wax nag ma ko nangul nangu goo xamee ne nangu googee ñi ma fi jiitu woon te njëkkoon ma fi ñëpp danga leen yéem ni nga nangu xasida gi way mujj ñi ba way mujj ñi ba tey ñoom it danga leen yéem yàlla na nga nangu ñaan ndax tawut la yow mi borom bi def fi kon mu tàmbaliwaat geneen xasida goo xam ne da koo tënkee barakaati yawmal mawlidi rabbil awal mu ne amoon sa danaa muslu bilaay ci kàttanu yàlla bi ne seytaane ci seytaane arajim kaddu kuñ jàmmuli sir mandi yàlla bismillahi sos na ma sama wax ci tudd tur buur bi arrahmaani xewlaa kon bépp mindeef ci àdduna arahim buur bi ajëram ku soob ci alaxira allahuma sun borom noo lay ñaan sëli yàlla na nga sax dàkkari julli wa sallim te salmal wa barik te doolik barke ala sayidina ci kaw sunu sang bi wa mawlaana tey sunu kilifa muhammadin tur mooy muhammad wa ali ak ñoññ wa sahbi ak saabaam yépp wansur yàlla na nga wisaare ala kaatibi haasil hurufi ci kaw aji bindi yi xaraf fi kulli aamin ci wépp waat wa saarin ak bu ne wa yawmin ak bis ne na nga wisaari ci moom mi ko bind barakaati yawmil mawlidi barke bi nekk ci bis bi yonent bi gën a jamono rabiul awwal tamay weeru gàmm mu ne maa ngi muslu ci kàttanu suñu borom mu musal ma ci seytaane mu mucc ci dégg nga maa ngi tàmbali ci tur suñu borom yàlla mu xéewalaa kon ñëpp ci àddina te yaay jërëm ko soob ci àlaxira maa ngi dagaan ci suñu mu sax dàkk di julli sax dàkk di sëlmal te sax dàkk di dolli barke ci kaw yonent bi nga xam ne mooy sunu sang bi du kilifa ñun jullit ñëpp turam mooy Muhammad yàlla yàlla julli ci waa këram ak saabaam ya maa borom man mi bind xaraf yii maa ngi ñaan yàlla mu wi saare sama kaw ci wépp xat ak wépp weer ak ay bis bu ne mooy semaine bu ne ak bis bu nekk barke bi nekk ci bisub gàmmu maa ngi ñaan bis bu nekk at mu ne weer wu ne ay bis bu ne suñu borom di ko wisaare sama kaw ba ba jamono ji may wax yéen tey tey ji rek yàlla mu ngi ko koy defal tey tey ji rek <laughs> ndeysaan tey tey ji rek yàlla mi ngi koy defal nga xam ne kon at mu ne rek yàlla dana yeesal barke bi nekk ci jawal mawlit sotti ko ci kaw Sëñ Tuubaa weer wu ci nekk yàlla dana yeesal barke bi nekk ci biir mawlid sotti ko ci kaw sëñ Tuubaa semaine rek yàlla dana yeesal barke bi nekk ci biir mawlid sotti ko ci kaw sëñ Tuubaa yàlla dana yeesal barke bi nekk ci mawlid sotti ko nga xam ne moom nekkul ne bis bu ñëwee rek la yàlla di jël barke bi di ko jox déedéet moom bis bu ne yàlla mi ngi koy defal barke mawlid bisam yëpp gàmm la ni waxee ne guddi gi yëpp laylatul qadar la ba ci gam yëpp feet lañ noonu itam noonu la mel bis bu ne rek suñu borom mi ngi koy defal barkeb laylatul qadar barkeb laylatul isra wal mihraj barkeb yawmal mawlid barkeb laylatul juma ak yawmuhu lépp suñu borom mi ngi ko defal moom sëriñ bi yal nañu ko yàlla fayal mu ne badi xosalli wal tusallim sarmada ala imaami almursalina ahmada rabbal wara salli wa sallim kullahin ala nabiyika raisi salin badi yow yàlla mu daaji fent ji woo naa la sëll nga sax dàkk di julli wal tusallim tey salmal sarmadan faw ala imaami almursalina ci ki nga xam ne mooy njiital yonent yi ahmada tura mooy ahmad rabal wara yami borom bi def ba tey woo naa la yaa rabal wara sali yàlla na nga sax dàkk du juloo salim te salmal kulle hin yépp waxtu ala nabi ka ci kaw sa yonentu bi raïs saalin kay njiital way baax ñëpp yow yàlla muy aji fent ji maa ngi lay ñaan way tax ñi xasaf yaa umuna daag waaye yaa badion wala yaa rabal wara loolu waroon wax moo tax mu ne woo naa la yow mi fent ji yàlla na nga sax dàkk di julli di sax dàkk di salmal faw ci yonente bi nga xam ne yonente yëpp mooy seen jiit turam mooy ahmad yow yàlla borom bindéef ba tey yàlla na nga julli ak salmal faw ci bépp waxtu ak jamono yëpp ci ki nga xam ne mooy sa yonent bi waaye ñu baax ñëpp mooy seen njiit kon nag ñu baaxu taxul ñuy wax ndax sëñ moom la féetee kaw rek lay taggee yonent bi nekkul fa naan yaay njiital nangam yaay njiital nangam waaye boo ne yaay njiital ñu baax ñi kanaa ñu bon ñi koy taxul ñuy wax ñu baax ñi koy moo tax muy wax kër yi mu woo naa la ba tey yow yàlla muy aji tedd ji sali yàlla na nga sax dàkk di julli bi salaam yi ko gànd ko sa sëlmal ala man istafayta ci ki nga xam ne yaa ko tànnal sa bopp dégg nga dégg nga wa faala ta nga garant xadayta ak jubam mooy wafaala ta nga def rek xadita ak jubam mu ne yow muy aji tedd yi woona la li ma defee nag mooy yàlla nga sax dàkk di julli julli gu ànd sëlmal ci yonent bi xam ne yaa ko tànn ci nit ñëpp ca alamul arwa kooku ma ci alamul arwa la ba noppi ne yaa garante ak jubam moom mantu dëng sallallahu alayhi wasallam akram woonal yow mi aji yàlla nga sax dàkk euh, di julli abadan fa wasalima tasalma ala si ci yonent bi nga xam ne xaada womat na ilayka jëmee ci yow yàlla al ulama borom xam-xam yi jëfee seen xam-xam yëpp ba tey al ulama ulahoon waaye dañoo xasab xam sa nger ngir wëyu yow al yàlla mi aji tedd ji nga sax dàkk julli faw te sax dàkk di ci yonent bi nga xam ne borom xam-xam yëpp womat na leen jëmee ci kon borom xam-xam yi jëfee seen xam-xam yëpp ba noppi di jëfee seen xam-xam yi di laabiri di leen gindi di leen yóbbu ci yàlla la kon buñ ko yëgee ak buñ ko yëgut yàlla mi ci boppam ci barkeb bi sallallahu alayhi wa taslimu ko sax sëlmal albaax yow yàlla muy aji des ji ala afdali man yàlla na ko dott ci kaw ki nga xam ne mooy ki ngën ci madaa wéyoon nañ fi oman yaati ak ñiy dikk oman fii sa saman ak ñi nekk ci biir jamono yow yàlla muy aji des ji dama bëgg sëlmal goo xamee ne da nga koy ci yonent bi nga xamee ne ña wéyoon ak ña teew ak ñi nekk ci jamono ñëpp cem ak ñiy dikk ku mel ni yonent yi moom mostu mostu ñëw jamono te dootul ñëw mukk yëpp te moo leen gën nag fadlu yonent bi ci kaw mbindeef yëpp kooku mose fi ko gis ci la wéy ak ci lu teew ak ci luy ñëw yasiru yàlla na nga yombale li wara jëmee ci ngën ci mbindeef almuna bi bétam wasal yàlla na nga julli musaliman mbir mu mbir mu ngay aji salmal ali ci moom maa bisirin ànd ak mbég moo xam ne asal xamales na ko ca moom yàlla bëgg yonent bi lépp lu muy mbébét ca raw doom bu tedd ba nanga ko ko yombalal mu jot ci bi maa ngi ñaan yàlla nga sax dàkk di julli di salmal ca moom waaye julli ak salmal goo xam ne waxtu ne day moo xam ne day dem ci raw doom yonent bi sallallahu alayhi mu di ko am di ko yëg di ko dund wa doot yow bi sal yàlla nga sax dàkk di julli wal tusulim tey salmal fii lu xóot biir waxtu yëpp alala si yonent bi nga xamee ne madda tàllal na ilinaa jëmee ci ñun xayra xoon ngën ci ak dund yàlla muy soppaakoon sab jaam te sa jaam di sopp maa ngi lay ñaan yàlla nga sax dàkk di julli te sëlmal ci biir waxtu yëpp di ko jëlee ci ñun sëñ Tuubaa ndax lot nañ ci waaye yow lañ bëgg nga julli ci yonent bi di sëlmal ci waxtu ne ci yonent bi nga xamee ne ngën ci dund dee buñ ko amee yonent bi moo ñu ko jox moo ko womat indi ko ci ñun mu da na nga jox na nga tàllal salaamay ko sa julli ak sëlmal li afdali wara jëmee ko ci ngën ci mbindeef yëpp kama madata comme ni nga tàllalee tàllal mooy jox rek asura saar alquran yi xablu ci lu jiitu loxoo jëmee ca moom yàlla damaa bëgg sa julli ak sëlmal na nga ko jox ngën ci mi def sallallahu alayhi wasallam comme ni nga ko joxee alquran daal noonu laa bëggee waxtu wu jël julli ak sëlmal goo xam ne day mel ni maa ko def man Sëriñ Tuubaa ko jëmee ci ngën ci mi def comme ni nga ko joxee saar alquran ci lu jiitu mooy ba mu wàccugut ku ne xam ne ne wàccugutoon yonent bi juddagutoon waaye bi yonent bi bi mu neexee yàlla ba mu judd ba nekk mm, dégg nga mat mu ko laf suñu borom di ko sirwayal boppam ba keroog am ñeent fukki at sunu borom dogo wàcce ci moom alquran di wàcce ci moom waxyu kon loolu mooy xablu gi. ahad yu yàlla muy kenn woo naa la sal yàlla nga sax dàkk di jëlewal taslim te sëlmal doona at ci lu benn lim ala nabi naa ci sunu yonent bi bu saaraate ma at kay mbégum banoo ma xat te yàlla muy kenn yàlla nga sax dàkk di jëlewal te sëlmal goo xamee ne kenn du ko lim ci yonent bi nga xamee ne mooy mbégum banoo ma xat maanaam maamam ya da caa bokk ku ñëwaat ma xat waaye maamam ji la muy sëri sëri ca maam yu mujj la du tee yonent bi la daan tiitaroo di ay te ca maamam ya la bokk sallallahu alayhi wasallam eh, ay maam yëpp koy tiitaroo sëñ bi itam suñu borom may na ko way juróom góor wu jigéen yëpp maanaam bu ñu demee ba seen daraja feeñ sëñ Tuubaa tax xatax talax bi umana wal walidu ci xasida yaa jumlatan kon la suñu borom may na yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci baatin moom suñu borom may na ko sëriñ bi ci saayir mu basiri na nga bégal arasul li wàcc ka ngir sa jëmm yow yàlla alkarim ji raaji mi nga xam ne bi ci darajaam bi yax boo ci ngay mayee bi sool maanaam ak paju ajo yàlla damaa bëgg di la ñaan di la dagaan ngir sa jëmu ju tedd ji dong liggéey bi may liggéeyal yonent bi na nga ci bégal yonent bi mu sedd xolam na ci sedd yow nga xam ne ci barkeb yonent bi képp ku am paju aajo nga may ko ko ci barkeb yonent bi ci nga ko mayee sallallahu alayhi wasallam malik na nga moom la rasulullah yonent bi yàlla mi nii mi nii mu tukki ci man maa yi sur loo xam ne da koy kontaanloo bi leen tixaan te mbégte mu dul am yi mu koy mukk waye sir yàlla na nga yombalal li ñeel ma lépp lu jafe ba tey ci barkeb yonent bi dama bëgg yow suñu borom na nga jox yonent bi sallallahu alayhi wasallam loo ne day bay koo ci man lu koy kontaan la toddu am fu muy yem mukk maanaam mbégte mu dul am yemukaay daal nay mel ne daal bëgg ko bégal mu mel ni maa koy bégal <laughs> ndaw neex na nga moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu tukkee ci ne da koy bégloo mbégte mu dul am yemukaay waaye damaa bëgg itam lépp lu jafe nga tàggatal ma ko ba mu yomb ci barke bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam wasil yàlla na nga eggale salaami sama sëlban an salaati gu ànd ko sama julli sarmadan faw waxi dem yi ak sama liggéey bii ma koy liggéeyal ila safian jëmee ci aji ramu ja ahmadaata mooy ahmad sallallahu alayhi wasallam mu ne damaa bëgg nag julli ak sëlmal woo xam ne waxtu ne dañuy yees na nga ko ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam te na liggéey bii ma koy liggéeyal ci géej gi na nga ko liggéey bi mooy ko lislaam doon ko ci saayir ak ci baatin mu ne lépp na ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi nga nafat moo daq makaar yi lépp lu mu doon naqar la xëyri saati mu jëm ci fudul sama jëmm waaye wa safat moo sellal sama lépp nee na jox naa yonent bii di muntaxa liggéey boo xamee ne lépp lu doon naqari ci sama yaram ak sama xol liggéey bu mu ci musal dàqal na ko ba seet wicc waaye itam bu demee ba ma am ak sell sama xol ak sama jëmm lépp liggéey ba tey moom ko may comme liggéey bi nu mu ko dàqalee lépp lu lu mu doon yëg ci yaramam ci xëyti naqar ak ay tolof-tolof yëpp liggéey bi mu jëmale ci yonent bi moo ko ci musal waaye liggéey moo ko may yaramam féex xolam féex lépp dal ci borom bi subhaanahu wa taala daxa jasaullahi wa rasuli kulli li sukrihi bi xayri suuli daxa woona jasaawulaay pay yàlla wa rasul ak yonent bi woona kulli sama lépp li sukri jëm ci ak santam bi xayri suul ànd ko ngën ci ak pajuk aajo nee ne paygu yàlla ak yonent bi maanaam ñoo ma woo ngir ma sant ngir ma sant xam nga sëriñ bi dafa liggéey ba yàlla na ko léegi nag kaay jërëjëf wàcc nga yonent bi na ko kaay jërëjëf wàcc nga ñoom ñëpp kenn ku nekk na dar ko commencé di ko faykat moo tax suñu loolu moo tax may sant yàlla kon boo gisee xasida yu bëri yëpp rawatina yi nekk ci gannaaw gi dégg nga ku ne xam na ne suñ bi daanaka mujjam yëpp da doon bind rek jëmee ci yàlla lépp rek ngeen sant rek bañ a neenal rek ndax heure bu ne waxtu ne may yaa ngi beekoo ci yàlla di ñëw ci moom may yaa ci yone di ñëw ci moom kon moo tax heure bu ne muy sant suñu borom ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu ne yàlla ak yonent bi ñoo woo sama lépp nga xam ne sëñ bi sañatu sant ci ay loxam rek wala làmmañam rek wala ci ay cëram waaye lépp lu mu am rek da koy sant yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi dégg nga dégg kon yàlla ko yàlla fayal moo tax mu ne payoorug yàlla ak yonent bi pay gi ñu may pay ñoom ñaar ñoo woo sama lépp ngir ma cant ko lañ may pay li tax ma di ko sant kon pay ga ko waral kon nit ki boo déggee mu ne day sant dafa am lu ko defal waaye bi xëyri sul ànd ko ngën ci ak paju aajo lañ ma defal lama doon laaj yàlla la ca gën dégg nga sant ga may sant suñu borom ci payoor ci payoor gi ma defal sant ga may sant yonent bi ci payoor ga ma defal dañuy ànd defal ma ci ngën ci la ma doon laaj lañ ma jox nga xam ma laajoon lii dañ may jox la gën muy jubóog yàlla radiitu gërëm naa andra bi wali sama borom wa an wasilati ak wali sama sëriñ bi di yonent bi salaay salaam salaa yàlla na julli ali ci ma mubtiyan mbir moom muy aji saxal jamilati sama sama sama tab bi rafet mooy sama taar gërëm naa sama borom bég ci moom kontaan ci moom gërëm naa yonent bi nga xam mooy sama wasila bi dox sama digganteeg sama borom kontaan ci moom maa ngi ñaan sama borom mu julli ci faw waaye yàlla na saxal sama taar mooy sama jeexit mooy sama taar sama mbubu yu rafet sama tagg yu rafet yàlla na ko yàlla desal ñëpp di ko jàng dégg nga euh, loolu mooy cant yi may cant yàlla rek xam nga cant nit ku ne nit yàlla ku ne buy sant suñu borom dafa am jeex ju fi bàyyi nit ñi di ko jàng ñu xam ne ah kii kat lii la fi nekkee woon lii la ko boromam doon defal nangam ak nangam kon jeexul boobu da koy gis ci Sëñ Tuubaa da ngay xam ne kii am na jamono yu mu doon dund ci xaal boo xamee ne ay tolo tolo rek loon waaye da lay wóor ne génn na ci xat-xat ya ci lan nga ko mën a xamee mooy bind yu fi bàyyi kon mu ngi noonu kon karaamati xatu ci Sëñ moom dañ koo gëm bu wér sala ali mubqiyan jamili yàlla yàlla julli ci moom mubqiyan mbir muy aji saxal jamilati sama taar muy sama cant yi may cant mu doon cant yu rafet ndax loolu mooy taar bi baax na leer noonu nañu li ñeel ma al yawma tey ji bi laa taqawuli ci duut ci lurut ñàkk wax dëgg yum nu nabi barke bi yonente yàlla Muhammad fii rabiul awwal nekk na ci biir weeru gàmmu nee na ji jii moom awma lu may lam-lame ndax sama diggante ak sama borom diggante bi bi kenn doxut ci te waxuma wax yoo xam ne dama koy wax ngir sos wala nangam waaye daal na ngeen xam ne barke bi bi ku koy jiix ku ko bëgg am mu ngi ci biir weeru gàmm faaw nga jeex ko ci biir weeru gàmm kon loolu moo ñu ko waxal kon weeru gàmm boo ko bëgg a jeex dëgg dëgg dëgg xam nga fii sax dégg nga waxut ne mi ngi ci bis ba donte nag bis ba nag mën na ko cee dakk waaye dëgg-dëgg kon weeru gam yi dañ ciy digg ne gàmm yëpp boo bëgg a jeex barke bi yonent weeru gàmm ngay dugal weeru gàmm yëpp mu ngay dundal kon moo na ko waxal kon waxtu ne dangaa war a gëm ne dangaa war a gàmmal yonent ba ci weer sax danga ko war a jox xorma ngir lan yonent bi kere bi mu juddoo lépp lu bon dafa daanu moo xam waa Kisra ak ñecaaju yëpp moo xam bàyyi ma yi daan daanante kere bi mu juddoo moom yonent bi gis nañ ñëpp yëpp yëpp yëpp dañ koo màggal géej gi safoon xorom saf suukar dégg nga lépp lu daan xeex daan daggante keroog juddug yonent bi dañ ko tuddee xamal fat yi xat moo xam ne atum mbégte la atum xubbeeku la kon da nga ciy dégg ne weer yëpp da ko war a jox xorma bu ci mooy yàlla comme yonent bi ci weer la judd te te te keroog bi mu juddoo weer yëpp bàyyi ma yi sax mënuñu mooy yàlla ngir xam ne dëgg ñëw na naxasaay dem na sallallahu alayhi يذكر رب العالمين أحمد على بشير اسمه محمد على نسير اسمه محمد يحمد رب العالمين أحمد أحمدنا الماهي به ما ساء بيني وبين كل من أساء يذكر دنا سنت رب العالمين يلا مي برم بندي في أحمد أحمد ala basirin cant gi ma di ko jaaree ci aji bég la ja nga xam ne ismuhu turam muhammadu turam mooy muhammad nee na waxtu ne man mii di Ahmad damay sant yàlla muy borom bi di fi waaye nag buntub cant moom ku koy def ci buntu yonent bi rek nga mën jaar moo tax damay jaaree ci buntub aji bégale ji parce que sëñ bi li waral muy appliqué tur yëpp dafa xam ne yonent bi ko yàlla yónni Basiir la tudd kon mënoo sant yàlla te doo jaar ci Basiir même aljana boo fa duggee sax ci barke bi yonent bi nga fa duggee mën a sant yàlla kon yonent bi mooy baabu sukri ni mu doonee baabul huda baabul ba baabul baabu tuqa noonu la doonee baabul Basiir mooy bunt bi bégle dégg nga waaye mooy baabu sugri buntu cant kon kenn mëntu sant yàlla anam boo mën a def jëmee ci yàlla rek faaw ci barke bi yonent bi nga koy defee sallallahu alayhi wasallam mu ne dana sant yàlla mi borom bindee fi ki nga xam ne mooy Ahmad mu jublu ci boppam di ko jaaree ci aji bégal ñi ko gëm ci aljana ka nga xam ne turam ca dëgg-dëgg lañ ko tuddee mooy Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ne ala nasirin yàlla na doole wàcc ci kaw aji xuppe ja ka xam ne ismuhu turam Muhammadu turam mooy Muhammad yaxmadu dana sant rabal alamin yàlla muy borom bi def ahmadu ahmad nee na ahmad mii de dana sant faw yàlla muy borom bi def yi ko jaari ci yonent bi nga xam bokk na ci turam ya mu amee moom ñi ko gëm a ko a jóg nasir nag moom la muy jàjj mooy xool ñu réer képp lay jàjj bu leen jàjjee léeg-léeg mu jëriñ mu ànd ak ñoom mu ànd ak ñoom ci basir gi yóbbu leen aljana bu leen jàjjee jëriñut ñi beeru nag dem safara yàlla na ci yàlla musal kon ala nasirin mooy yàlla dotte ko ca ko aji xuppe ja yaa yaa nabi inna arsalnaaka shaahidan wa mubashiran wa nasiran wa daa'iyan ilallaahi bi isnihi wa siraajan muniiran ko loolu suñu borom defal na ko kon kooku turam mooy Muhammad Ahmad mii di wax ak yéen nag moom waxtu ne day sant borom di ko jaaree ci yonent bi loolu rek la bëgg a détaillé ci ñaari bayit yi waxtu ne daal damay sant sama borom waaye di ko jaaree ci yonent bi salaasam Ahmaduna sunu Ahmad mi almaahi kadaaji far bàkkaar bi ci dara jaam moom yàlla maasaa a dégg nga loo xam ne doon na naqari ci la ko yàlla faree ci man bay nii sama diggante wa bay na kulli man ak diggante képp koo xam ne asa a doon na mën a xaral nee na sunu Axmad mii nga xamee ne mooy aji faj far bàkkaar ji lépp lu ma doon naqari rek sunu borom musal na ma ca wala képp ku mu doon naqaral kulli man mooy képp ku mu doon naqaral maasa a mooy lépp lu mu doon naqaral bii man la bii maa moo tax mu ne Axmadu naa sunu Axmad ne almaahi kadaaji far bàkkaar bi ci daraja moom yàlla ci la doxee maasa a lépp loo xam ne doon na naqari bay nii sama diggante wa bay na kulli man ak diggante képp koo xam ne asa a doon na ma naqari doon na ma naqaral maanaam képp ko mu doon naqaral ak lépp lu mu doon naqari ci barke bi yonent bi ci yàlla ci la yàlla doxalee sama diggante ak musal ma ca li laay kon nag ñeel na yàlla kort su guree sama cant cër waxam di ak sama cant xol sarmada faw alal qalili yàlla na doole sotti ko ci kaw ka nga xam ne mooy yàlla ba wala xabibi ta di soppeeb yàlla ahmada mooy ahmad abqa salaatin gën kaa sax julli wa salaamin ak sëlmal abada faw alala si yàlla na ko yàlla julli ci kaw yonente bi nga xamee ne kaw nii doon gi ma doon xadiimoo ku koy liggéeyal faw ko ba daal leer na ñëpp leer na naññi nee na sama cantuk cër ak xol yàlla rek laa koy jox faw waaye fu ma toll dama ko jaare ci yonente bi nga xam ne bokk na ca turam ya mooy xalilu ak xabib ak ahmad xaritu bi yàlla soppeeb yàlla la yàlla ki mu gën a xaritoog mooy yonente gën a sopp mooy yonente bi turam mooy ahmad moom yonente bi salaay maa ngi dagaan ci yàlla gën kaa sax julli ak sëlmal koo xamee ne faw lay doon mu sotti ko ci kaw yonent bi nga xamee ne don gi ma doon man suñ tubaab ci koy liggéeyal moom yonent bi kooku leer na nañ ko amul kenn ku koy wedde wala daduna makaarihi lépp lu mu doon naqari li xëy jëm ci kurut man sarmada faw bilaa rujuxin bilaa rujuxin ci lu muy dellu siwaat lii di jëm ci man waxumi daa ta santees na moom yàlla xamul yi sama dund léegi nag amatuma benn problème bu may dund di ko yëg ci sama xol loo xam ne day niroo xeetu naqar lépp yàlla musal ma ci faw mu jëm ci ku dul man te naqar dootul dellu siwaat sama jëm wala sama xol te yàlla gërëm na sama dund lépp sant ko waa jaani lu na ma ilal jinaani ba rek may dugal jina al ajru mboolem yooli suñ borom yi wala yan hoo te du jublu mukk lii ci man asan lenn luy loraate aw sajur wala muy jajjaate nee na lu ñuy tuddee yoolu suñ borom payoru suñ borom ba rek may dugal jina moom rek lay dajee wala ku may jàjj naan dag ma yilif wala di ma wax kàddu goo xam ne neexun ma kooku suñu borom musal na ma ci day wane rek mucc na ci tukki bi ndax tukki ba dafa métti woon ndax daan nañ daan na dégg lu ne waaw donte sax la la la muy dégg ci ñoom loolu doonu dëgg waaw waaye dañ ko doon def rek ngir xupp ko léeg-léeg ñu ko léeg-léeg ñu xapp ko waaw xupp ko di ko wax kàddu yu ñaaw itam ñi wane dañ koy jox lekk yu neex wala yu mel ne xaar kon ko xupp nañ ko waaye loolu yëpp suñu borom musal ko ci rek moo ko fi doon moo tax mu ne lor gi bàyyi ko ci noonu du ñëw di ci man wala koo xam ne daf may jajj wasaltu eggale naa lil boo xam ne tafat moo dagaase moo fekk makaar yi ma doon naqari la xëyri saati mu jëm moo sellal sama lépp nee na jox naa yonent bi sallallahu alayhi wa alihi ba ma nekkee ca géej ga liggéey boo xam ne lépp lu ma doon naqari liggéey boobee ma jëmli ci moo ko dàq mu jëm ci sama jëmm waaye liggéey boobee moo tax sama jëmm jëpp sell sama xol sell may dund ba tey dafa waxoon ne allahumma salli wa sallim muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ansur ala katibi wa sahrin wa wa yawmin barakati yawm mawlidi rabbi al awal ba tey xasida googu moom lay yëgaliwaat mu ne na bu ko yàlla mayee bis yeeg weer yeeg at yeeg semaine yeeg nga xam ne waxtu wu rek barke mawlid yàlla mu ngi koy wisaare ci kawam moom mu bind xasida gi mu ne bu ko yàlla mayee xam na xam na ne ab jaam lépp lu ko yàlla may lu mu seer seer ak lu mu bëri bëri yàlla na koo jëlaat wala am lu ko moo tax mu ne bilaa afatin wala kadrin wala nax nax fii di nekk ci man wala bay wala muy nekk sama diggante wa bay na aadin ak diggante kenn amin yàlla nga ko ñaan yaa rabbal alamin yàlla mi borom yàlla may la waaye lu tax nga may gi ndekk ci yow la léeg ba nga defee ne yàlla du dugg jëlaat yàlla day may day abla rek de day abla ok kon léeg nga gis nit koo xam ne da ngay ne kii dootul yàqule wala léppam jag na muy def lu ko neex topp bakkanam ci na nga naan kii baax la nangam ak nangam fekk lam yoroon yàlla jël ko ba yàgg ijaabo nekkul ci moom xëbool nekkul ci moom rida rida nekkul ci moom ndax lépp mu yàqu na sëñ bi nag foofu lu wute lépp lu ko yàlla may da koy musal ci la ko yàq ndax moom ci boppam moo koy ñaan loolu lépp loo may lu koy yàq ñagal ma ko sànnil ma ko ne le dagaasal ma ko moo tax ne ci lu benn gàkk-gàkk wala nëx na buy nekk ci man kon léegi nit ki yàlla defal la dara yow nga gàkk-gàkk nekk ci yow wala nëx na nekk ci yow yàlla jëlaat ko wala gàkk-gàkk nekk sa diggante ak nit ñi kon yàlla ndeke bu la mayee lu mu mën a doon rek dafa bëgg nga yaatal ci sa bopp defar sa bopp jot ci sa bopp ba noppi nag defar sa diggante nit waaye bu la yàlla jox dara rek nga daal di cee bóof déedéet kooku yàlla bëggul loolu ak lu mu mën a doon nag kon mu ngi noonu mu ne wajaan yàlla nga def xaasil abiyaat yi bayit xadaa muy aji fat muy aji faj kulli ma faatani lépp lu ma rawoon fii siri ci lu nëbb ak ci lu feeñ fii kulli ma mada ak amin yàlla nga nagu ñaan yaa alamin yow yàlla mi borom bindi subhaana rabbika tudd na ma sell ak buur bi rabbil izzati moom mi borom tedd nga amaay si foon walis lépp luñ koy melal doom ak jaaju wasalaamun waraam du melo sax dàkk tarafet li lay aji sax la ñeel yàlla rabbil alamin muy borom bindi fi mu ne maa ngi ñaan suñu borom bayit yi lépp lu ma rawoon ci aduna moo xam bi ma juddugut wala bi ma juddoo ba laataa may taarif xasida gi maa ngi ñaan mu mel ni daal suñu borom may na ma dabaatal ko lu ma rawoon daal maa ngi ñaan suñu borom may ma dabaatal ko mel ni ku ko am li ma rawoon moo xam ci lu nëbbu la wala ci lu feeñ lépp wala lépp lu woyoon ci ay xat rawoon ma maa ngi ñaan yàlla mu dabaatalee ma ko ma am ko ci barke bayit yi ma ne ko yàlla nga nag ñaan yow yàlla mi borom bindi fi maa ngi tudd sax sela di la sori lépp luy xëyti naqis yaa mi borom tedd nga maa ngi lay sori lépp luñ lay melal ci doom ak i caaju jàmm yàlla ci mboolem ku yàlla mosu yónni meloo sax dàkk tarafet aji sax la ñeel yàlla moom muy borom bindee fi kon ba tey xasida googu foofu la yem te moo doon xasida gi nga xam ne moom sëriñ bi da koo